ñu ngi lay nuyu euh, Sayer euh, di la gërëm ci disponibilité bi ak waxtaan wi nga nar a sekk ak ñun euh, ci Lat Dior moomee am solo lool ci histoire Sénégal ni ma ko waxee léegi. waaw ñu ngi lay fay di la sant di la gërëm Adja Fatou bon je crois que bi mooy suñu deuxième édition. ma fi ñëw di waxtaane mboor ci Maam Lat Dior lati Latyr Diop le héros national mais permettez-moi d'abord ma nuyu suñu bokk auditeurs yi. Euh, tamit euh, di fàttali nii rek euh, tout récemment on a perdu sunu bàyyi Abbas mi nga xam ne moo doon xalifa bi. Mm. Ibrahima Masek mi nga xam ni moo doon jëwriñam toppoon ci moom it génnoon àdduna ñu di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana si ba tey jii ah yaakaar naa ni suma juum le bi war nañ seeti ki nga xam ni actuellement mooy actuel xalif bi di bàyyi Sidi Koulimbaba di sët ci maam Koulimbaba nekk Daaru Naïm muy nekk nag euh, visite boo xam ne ñu koy préparer famille bi yëpp war faa dajale 18 incha allah. Mm-hmm. alors ñu war a ñëw ci euh, jaar-jaaru euh, Mame Lat Dior Ngoné Latyr Diop ni nga ko waxee léegi ay jamono ngi nii ngeen sumb colloque di waxtaan wu yaatu woo xam ne da ngeen koy amal jublu ci xëy na dellusiwaat ak fësal euh, jaloore yi nga xam ni euh, moom Mame Lat Dior def na ko waaye dañuy tàmbali ak nga présenté ko ndaw ñi nga xam ne xëy na tey xamuñu lépp ci Lat Dior wala sax daanaka la ñu cay dégg lu néew la par rapport ak li mu def tey boo nu doon wax kan mooy Lat Dior euh, loo nuy wax. waaw kon bu ma leen doon wax kan mooy Lat Dior tey comme ni nga ko waxee yaakaar naa ni dina mën a wax ni Lat Dior. mi ngi juddu 1842 ca kër Amadou Yàlla bon am na ñu ni tamit cilmaxa mais xam nga dafay fekk ni cilmaxa ak kër Amadou Yàlla presque daanaka boo xoolee un kilomètre la kon loolu dafay doon loo xam ni tey daanaka ah, mën nañ koo mën naa indi jaawale waaye nag lépp rek ay maamam ñoo ko fa ñoo ko fa defoon mais histoire daal dafa jàpp ni Lat Joor est né en 1842 ak kër Amadou Yàlla mu doon ku juddu ci 1842 bi mu amee 18 ans nag Euh, ginnaaw bi nga xamee ni mi ngi kajoor ndax foofu aussi toujours dama fay indi waxtaan woo xam ni damay bëgg nit ñi di ci def taxaw seetlu dafa amoon lu ñu naan Guet le Guet dafa nekkoon une province boo xam ni mi ngi woon ci biir kajoor mais autonome ndax ñoom dañoo soqi ko ca Njaajaan Njaay ay maam yi Lat Joor nag bokkal fa Saxeer Fatma ñoom Kuli Koddu Nguy ñoom donc ay barget lañ woon ñoom titre bi fa gënoon rëy barget la woon donc Lat Joor mënoon naa doon barget ci biir geet waaye nag bi Kajoor jëlee indépendance am ci Amari Ngoone Sobel à la bataille de Danki Kajoor dafa moom boppam mëddaale barget geet gi ndax loolu tam c'est normal bi mu mëddee get gi nag ah damel bi di am droit de regard ci palum barget yi mais ba léegi autonome nañu donc bi mu defee noonu nag Lat Joor moom am 18 ans euh, bokk ak Birima Ngoone Latiir benn ndey muy Ngoone Latiir Fall Ngoné Latyr Fall nag may sa tend euh, may sa tend joor moo doon bàyyam nekkoon buur bu amoon doole aussi ba damel bu amoon doole mais kon sax damel teeñ ndax foofu aussi dinaa ci ñëw ci daante damel teeñ ak damel kese ak teeñ kese alors may sa tend joor bi mu génnee àdduna ab sëtam moo ko doon ñu naan ko birima moom na birima ñu naan bécca benn baat ba ñoom ñu sundu di ko way mm. mu doon ku siiw nag mais moom aussi malheureusement Faidherbe daf ko empoisonné waaw waaw FADEB daf ko empoisonné parce que mi ngi falu 1856 1859 mu génn àdduna mu jaaxaloon ñu bëri mu tëdd ñaari at yoo xam ni euh, génnul xay na loolu sax moo waral ñu naan biir ma ma ca benn baat ba balaa wax bu waxee ren balaa wax ci déwén xam nga loolu yëpp tamit géwél dañ koy def rafetal mhm. histoire yi du ko approfondir waaye feder bu moo ko empoisonné looloo ko téye woon di génn très bien parce que les sages guérisseurs di Kajoor parce que Kajoor aussi dafa amoon ay docteurs mhm. ay ophtalmologues ay ñoo xam ne aussi c'était des cardiologues bi ñu ko xoolee daal dañu ni daal li ko feebar daal xam naa ni tookale ju nu def ci lu mu naan donc voilà bi ñu xamuñu fu Faidherbe bi jaar ba def ko loola si parce que booba Faidherbe bi mi ngi am relation ak ñoom bëgg defar téléphone bi parce boobu raay bi ñëwagul projet raay bi am na mais français yi indigoñ ko boobu téléphone bi lañ bëggoon jële Gorée yóbbu ko Saint-Louis Faidherbe bi nag doon xaar biir ma signal ko loolu alors bi mu xamee ni tey jii parce que tubaab bi aussi dañ doon amee information Maïssata Ndior doomam yëpp dee nañu Birima moo ko war a doon bi ko Birima doonee nag Faidherbe bu di jëflanteeg moom daan échanger ak moom xëy na di ko jox ay fas di ko jox bon ak euh, voilà ay yeneen objets yoo xam ne mën nañu koy jëfandikoo. Euh, ak tamit euh, il faut le dire peut-être booba buur yi ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy naan xam nga le vin le vin était mangé à table bon comme tey niñ ko xamee les grands bourgeois donc du péjoratif ñu ni Birima da daan naan ndax tey. da naan français bi day naan Macron day naan wala keneen day naan ñoom naan bi. la tombé très bien naan googu nag xam naa ni ci la def li mu def ba tooke ko mu naan ko tey bu doon jamono yi la buñ ko autopsie fédéral moom dañ ko war a euh, dañ ko war a suspendre ko war dañ ko war a régiger dañ ko war a condamner. te loolu c' était la méthode des français et de fédéral ndax Café Touba gi ngay gis sëñ Touba defal nañ ko ci tooke pour mu naan ko moom it. Hmm? Buur Buur Sine Coumba Ndoffène. bi xeex la Lat Joor parce que y' a plusieurs Buur Buur Siin bi Faamak bi xeex ak Lat Joor Faidherbe ba daf ko empoisonné moom it daf ko empoisonné de source moom it ci poison parce que daf ko invité Fatick yaakaar naa ni lors d'un dîner bi mu fa jógee moom it ci la daanu feebar boobu ba génn àdduna donc pour revenir ci Lat rek di wax ni il a un destin il a exceptionnel comme ni ma koy waxee ndax dafa doon koo xam ni ci constitution Kajoor warul woon falu ci benn côté c'est-à-dire il remplissait pas les les conditions ci constitution bi laa wax de ci constitution bi mais ay maamam falu nañ avant sax damel di am donc mais nag boo ñëwee ci territoire jàmbur ak ci réew jàmbur dafay am constitution ñoom dañ ko considéré woon comme koo xam ni baayam santul faal bi nga xamee nag Birima génn àdduna mu amoon ci Yacine galo Dégène ak euh, ma joojo ak euh, ma kodd ñetti ñooñu ñoo éligible woon pour ñu fal leen bi ñu defee élection ñooñu en 1860 la loolu parce que toog nañ un dikk ba sax am ñu ni Faidherbe bu buggoon a jàppale Debbo Souka la grande ligueur kooku aussi xëy na dinañ ci ñëw euh, qui avait un caractère ba demoon parce que Debbo Souka ak Ngóone Latyr ñoo bokk ndey ak bàyyi léegi donc Debbo Souka moom li ñu doon bànjee géej yi ils ont régné en hégémonie parce que Lat Sukaabe mi ngay dégg moo doon seen maam moom it ñëwoon ci pouvoir bi téye woon ko ba Dorobe yi tamit jaar nañ fi mais bi nga xamee ni géej nag ñoom pouvoir boobu téye nañ ko avec une armée forte muy ñoom Demba War ñoom Bounama Dior ñoom Ibra Fall Missar ces généraux ñoom ñoo ni kat néegub géej bi du ñu bàyyi pouvoir bi dem bi nga xamee ni donc du falu na muy papay Birima Faidherbe bi daf ko dàq ñu xeex 1861 ñu fal Majoojo ci la nag Lat Joor nag ñëw nag moom ah ñu ni kat fii Lat Joor a fi sës parce que booba Samba Yaaya xale la il avait je crois 11 ans euh, Samba Lawbe mi doon jarbaatam moom it sant Fall war a falu il avait deux ans ñu ne ah nañ ko essayer on a rien à perdre xëy na bu ñu téyee bu téye ba ca kanam ñu jëlaat nguur gi. donc yàlla dogal nag mu nekk koo xam ne bi muy ñëw aussi il avait les qualités intrinsèques te boobu aussi bon ñoom mag ñi gis nañ ni ci seen i xar baax ak ci seen i gis-gis que ni daal la jor mi mën na téye le flambeau des géej ñu insisté nag avec l'armée fal ko dégg nga ci la xeex ci cuur en 1861. waaw mu dàq Majoojo fekk booba tubaab bi fal na fal na Majoojo qui leur était favorable et normal aussi parce que Majoojo aussi boobu néew na doole mu def alliance ak tubaab bi Lat Joor xeex ak moom à la bataille de Cucur ak kokki mu doon tamit kokki tamit dafa am relation bu ñu am ak waa ak Lat Joor parce que Mame Matar Ndoumbe mooy seen maam Mame Matar Ndoumbe moo tuubal maam Saxeer Farma mi maami Lat Joor mais Texe Jaasu ak Yaasin Jaasu seeni ñaari maam ñoom Mame Matar Ndoumbe ak Saxeer Farma ñoo bokk ndey baay Lat Joor bi ko ma joojo dàqee dafa daw dugg biir kokki kokki nag tamit comme ay mbokkam lañ ñu jàppale ko ñu xeex très bien bi ñu defee alliance bi xeex ak moom ñu dàq ma joojo ma joojo daw Saint-Louis ñu replier ñëw Mbul ñu introniser Lat Joor donc à 18 ans Lat Joor avait toutes les qualités pour être un damel. kon moom teel naa nekk guerrier. waaw teel na nekk guerrier léegi tamit bi nga xamee ni euh, nekk na damel boobu dafa dem daal di attaqué waat nag tubaab yi. à la bataille de Ngolngol exactement en 1863 bataille boobu aussi dafa def ay massacres c'est-à-dire euh, c'est la plus grande défaite des Français en Afrique occidentale maanaam xe li ñu fa rey ci tubaab ci Afrique de l'Ouest tubaab bi ñu xayma ba def seen rapport mus ñoo deelee lu toll noonu ci 1862 63 te boobu Lat Dior avait 18 ans ci la Faidherbe def rapport France ministre des colonies ni ko nag yaa a un jeune damel bu fi nekk nii ak géej yi ñii moom bu ñu leen faagaagalul duñu mën a def dara ci kajoor ci Sénégal parce que boobu tamit raay bi il fallait mu jaar fa. te xam nga kajoor dañoo yàgg bañ loolu. donc ci la def rapport boobu ñu attaqué leen ngol euh, fële comment dirais-je Looro. donc pour dire que xam nga foofu Lat Joor gañe na leen ngol-ngol ba def massacre boobu bi ñu ko attaqué Looro nag ci lañ fa def ñoom tubaab bi massacré presque dans l'armée réelle Lat Joor presque lu mat ñii nee nañ 300 ñii ni 500. parce que ñu jël seen revanche. très bien la première fois ou bien la deuxième daal ñu utiliser les canons qui étaient des armes non conventionnelles à l'époque mais xam nga boobu comme tubaab bi c'est des colons tey jii bu ñu ñu remettre ko en cause tribunal laa mais yooyu bu ñu ko àttee comme ni ñu àttee nos anciens présidents mm. dañoo war a condamner France waaw parce que loolu aussi mooy ñëw ni. mais li ngay wax nii dafa mel ni lu parce que lu tax mooy euh, xam nga loolu duñ la ko jàngal li tax mooy ba fii tubaab yi ñoo yore li ñu naan archive ñoo doon bind suñu bokk géwél yi nag jàng nañu parce que géwél yi aussi day am école par exemple ku mel ni Assane Maroque euh, dafa xam histoire bu xamoon ku mel ni Samba Jabara histoire Jolof la xamoon ku mel ni Mame Mbène Mboup histoire Kajoor ku mel ni Alaaji Kaani Samb kooku c'était le xam nga ay Assane Alaaji Kaani Samb ay bibliothèque lañu très bien il a même écrit un livre Sénégal démb donc ba nga xam ni tubaab yi comme ni nga wax nii ñoom tey ils ont des ils des archives qu'on appelle des archives classées ou bien des archives top secret archives yoo xam ni doo ci accéder parce que lafay nekk ñoom du ñu bugg africains yi xam ko parce que y a des crimes xam nga y a des y des viols mais Faidherbe il a écrit un livre boo xam ni voilà bi muy bind yaayam da ko wax ni ko doon lakk na ay vingt cinq dëkk ci waalo mm-hmm. ñëwaat Kajoor aussi def noonu donc ba nga xam ne tey y même un mouvement à Lille qui s'appelle bu doit tomber ñoo xam ne dañu ni ñoom célèbre Faidherbe kenn waru koo célébrer ci dara parce que li mu def ñaawteef ak li mu def ci Afrique entre Algérie Sénégal Guinée benn colonie colon mosu koo def loolu nag comme ni nga wax tey ñun suñu mboor jàngaluñu loolu baax na tamit loolu bu nga ko xamalee xale yi ñu xam ni seeni maam dañ doon bañ xam ni Lat Joor bi mu am 18 ans dañuy raay bi du fi jaar téléphone bi du fi dugg pour lan parce que intérêt nekku ci parce que réew aussi boo koy gérer boo koy diriger da ngay seet intérim réew ma moom loolu rek la ci jublu woon waaw parce que benn moment sax peut-être tubaab bi bi ñu ñëwee def raay téléphone bi dafa gàddaay dem rib ci Maba parce que bi mu jógee Nioro dañu néewoon doole trop ñu gàddaay dem rib ci Maba Jaxu bi ñu demee ci màbba aussi foofu euh, fédère bi dafa bind pine Laprade ñu waajal fa benn xeex boo xam tam lañ fa mobiliser ci ay nit mosuñu ko mobiliser en Afrique de l'Ouest presque 7000 om waajal ko muy en 1865 pour dem xeexi ak Maba parce que foofu euh, Pinet-La Parade dafa bind parce que bi la Joor ci Buur Siin la njëkk jaar bi muy dem am na sax ñu xamul loolu mais Buur Siin téye na ko ay trois mois ay deux mois trois mois ba mu toog fa mais parce que am nañ ay bokk parce que boo xoolee buur yi ay ma Majoojo ñooñu ñëpp seen yaay Juuf la ñuy sant en tout cas Kajoor ak Bawol ku musaa na jaaxle da ngay dem Siin mais nag Buur Siin Famak bi comme dafa amoon traité de paix ak tubaab bi tubaab bi ni ko nag Lat Joor moom sunu ennemi sunu sunu ennemi la bu ko fat mënoo xaritoog moom mënoo xaritoog moom donc génne ko ci la Lat Joor nag ah kon kat man mënuma laa fat ndax tubaab bii maa ngi moom it boobu tubaab yaa ngi ko jox ay arme di ko jox ay voilà yi ñuy gisee. di ko jàppale ni ko nag am nañ protectorat kenn du la laal donc ci la Lat Joor nag mer dem ci Maba bi mu demee ci Maba tamit Maba ni ko egsi nga foofu tamit dama fay indi leeral Lat Joor est musulman. waaw parce que jàng na alxuraan longoor mais bi muy ñëw ci Maba xale la dix huit ans dix neuf ans il était musulman mais non pratiquant la door ni ko nag dama lay wat jox la waaw Maba ni ko excuse-moi dama lay wat jox la wird waaw jox la wird mais tuubalu ko parce que Maba xam na ne Lat Joor jullit la waaye nag comme daawul pratique mun ko ah fii nag boo fi ñëwee da ngay sukkandiku ci charte parce que man damay def jihaat hmm. jihaat ji tamit ah dama ci am ndigal parce que Maba aussi c'était c'était un grand saint un grand almaami mu ne ko nag amul benn problème man dana nangu na maa tuub ndax jàng naa alxuraan jullit laa li ma wax lépp danaa ci nangu te ñu ma àndal ñëpp aussi dinañ nangu boo xoolee ñoom ñëpp ñi jopp seeni tur xam nga wat ceddo yi parce que bi ñu ñëw ay rasta la ñu indi woon ñu ñëw nag aussi jël xeex bi vraiment wane fa njàmbaar waaw def vraiment foofu xam nga avec la bataille de ñaan yi ñu bëri tuub nañ foofu c'est à cause de Lat bi nga xamee ni ñuy xeex xeexu Paoskoto boobu Pathé Badiane d'ailleurs ma ci remercier au passage euh, le maire de Paoskoto Alioune Mané et la famille de Maba euh, récemment rek le 30 bi def nañ fa feet bu mag à Pathé Badiane xam nga loolu aussi dañ ko war di fësal di ci def ay émission spéciale xale yi di ko seetaan parce que c'était une très grande victoire très grande victoire boo xam ni dañ fa sax jàmpine la parade benn moment parce que bi nga xamee ni tubaab bi ñëw nañu jóg nañu di ñëw la Jordanie Maba man xam naa tubaab yi naa tubaab yi xeex naa ñoom plusieurs fois bàyyi ma diriger xeex bi amoon na sax werante ak généro Maba yi mais finalement Maba ni leen bàyyi leen Lat Joor diriger xeex bi Lat Joor nii leen nag am nañ ay armes yoo xam ne buñ leen xaare bu nu ko dóoree ñun kooku massacre lay doon tubaab yi loolu moo leen sa objectif xeex boobu tamit Maamoor Anta Sele nga fa woon euh, dégg naa jour boobu ci xeex bi ci la maam Thierno Birahim Ndaamal Daaru Musi juddu gane àdduna bu ñuy def seen fête di dóor seen fétal yi maam Ablaye Niass maami Baye Niass ma nga fa woon suntu baaji mu doon borom xam-xam bu mag donc maam ba dafa créé woon benn alliance. waaw bañ doon dugg sax genre ay Sierra woon ak Gambie di jënd ay armes rien que rek pour cette grande coalition donc xeex boobu. noonu lañ ko gagné à la à la à la ñoom ña ngay xeex pour samp l'islam. très bien Lat Joor di xeex ak tubaab yi. kon bu ñu defee alliance waaw ñoo bokk noon ñoo bokk noonu. ñoo bo non seulement ñooy bokk noonu mais Lat Joor léegi day fekk si màbb ci diine ji. ñëpp ñu fekk si diine ci màbb ci diine ji pour léegi nag xeex bu defee nag tubaab yi nag daal di considérer nag euh, mabba comme un terroriste comme le dit souvent mais fekk na tamit ñoom ñu amoon alliance ak mabba mais foofu mabba dafa am courage ni leen du ma génne Lat Joor bu nangoon li condition yi mu ko teg du ma ko génn ñun ko boo ko génnewul danañ la attaqué. donc ñoom tubaab yi ñoom tubaab yi nañ def ak buur waaw nañ def ak buur siin ba ni leen non man jullit laa su fekkee nangu na du ma ko génne Lat Joor nangu ñu toog moo tax nag xeex boobu bi ñu demee ba ci biir maa ba ni leen bàyyi leen Lat Joor diriger xeex bi donc stratégie boobu tey guerre boobu stratégie bi dañ koy jàngale dans l'armée parce que li Lat Joor def ni leen bu ñu toogee dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañ bu ñu fekkee bu nu bombardé ils vont nous anéantir ñuy def mooy dañuy jël par exemple deux cent hommes wala trois cent ci côté gauche bi deux cent hommes ci côté droite bi ñu sende yoon fi ñuy war a jaar ñoom ñoom tubaab pour que seq leen noonu quoi bett leen ci benn kiwet bi ñuy ñëw malheureusement sax il paraît que foofu bon Lat Dior moo waroon joxe coup de kii bi coup de feu bi pour depp pour pour déclencher la guerre waaw coup d'envoi bi am ku déclencher armam hmm. ci lañ blessé Pinet-Laprade et mieux man ci archives yi temps yi gis naa ci sax ñu ni y avait un Euh, des canons de xaw ñaata millimètres ki bu accosté woon ak Kaolack mm. rien que rek foofu moom massacre lañ fa buggoon def quoi c'est-à-dire xeex boobu bu ñu ko pertoon kon doo déggati Lat Joor doo dégg doo maanaam kon daal loolu moom. donc na sax islam du yegg si fii mu yegg si ndax ñooñu ñoo euh, def résistance. waaw ndax booba sëñ Tuubaa ma nga fa ci Poroxaan. Mm. maam jaar Busa fa la des parce que Mabba moo leen jëli Mbàkke Bawol Mbàkke lañ nekkoon gii Mbàkke Mabba moo leen jël si bi mu ñëwee nag mu dogal sëñ euh, Mamor Anta Sali euh, Poroxaan d'ailleurs loolu moo indi tamit Lat Joor bi muy ñëw ànd ak Mamor Anta Sali parce que Maba moo leen boole mu demoon fa di nafar donc bi nga xamee ni xeex nañ somb à la de Somb avec Bour Sine ba Maba daanu alors ci la nag Lat Joor ànd ak Mamor Anta Sali ñëw fii dal Pataar d'abord xam nga après ci la nangoo nekk Barguet sa à dire tamit foofu ma ñëw ci stratégie Lat Joor bi nga xamee ni dem na ci Maba ba ñu xeex somb bon ba ñu dellu il reste deux ans au mais problème am yëpp moo doon moom nekkaat damel problème am yëpp moo doon kajoor waaw les gens souffraient tubaab baa ngi fi di leen néewal doole léegi mu bindanteeg tubaab bi tubaab bi ni ko lenn daal mooy mën a nekk soo ñëwee la fonction de damel moom supprimé naa ko divisé naa Kajoor en quatre provinces mais yow comme Barguet Guet sa kër maam la dinaa la bàyyi nga dem Guet nekk barget mun ko d' accord loolu en 1869 la bi mu ñëwee moom la Joor comme diine la yor ak lislaam day def dëkk bu mu dem bu julli jotee kër borom néegu borom dëkk bi lay def jàkk ñu julli ñuy nodd ak lépp bon. tubaab bi nangul leen ko. très bien parce que bon ci biir guerre la. tubaab bi xam nga tubaab bi parfois boo nangoo bu ngeen signé alliance tant que yow amoo ay bruit du amul problème c'est-à-dire l'islam boobu dangereux wu ci ñoom. Ah. tubaab bi l'islam bi dangereux ci ñoom mooy peut-être l'islamu jihad. mais Lat Joor booba deful jihad. mais mi ngi def nag alliance ak les les di njàmbur. Mhm. dem njàmbur. dem Jolof dégg nga mobiliser waat Kajoor gépp ba ñu jóg nag. mais loolu en la en douce la ko def tubaab bi yëgul lu xew. très bien en douce la ko def ba mu mobiliser leen ba mu wóor ko ni fi mu nekk nii armée bi taxawaat na waaw armée bi taxawaat na mu ni léegi nag damay changer capital bi yóbbu ko kër Amadou Yàlla jëlee ko Mbul parce que Mbul c'est la capital mythique parce que Mbul mooy première capitale di Kajoor. mais Mbul nag fa la xam yi fa la xërëm yi ak yooyu nekkoon donc mu ne nag léegi damay bi indi ko kër Amadou Yàlla. bi mu defee alliance boobu tamit dafa créer ce qu'on appelle un comité de marabout boo xam ni ñoo koy dugal xalwa ñoo koy wax li muy def moo koy maanaam lépp ñu ko ci diine mm-hmm. ñooñu nag ni ko nag fii moom kajoor gi mën naa dellu si say loxo mais da ngay song tubaab bi loolu nag sa fite la koy may ak sa jom ci la organiser waat nag attaqué tubaab bi en 1869 à la bataille de Mékhé à la bataille de Mékhé tamit ces grandes victoires aussi yooyu dañ ko war di célébrer Fatou parce que boo célébrer tey ji la bataille de tubaab yi dañuy dem ba Allemagne di fa far di fa célébrer ay bataille ay victoire et puis tamit beneen bi tamit mooy le service militaire xam nga réew nit balaa xam boppam nga jàngal ko quest que c'est la patrie loolu tey amuñu service militaire mais mën nañu ko jàngale ci ci école yi quand ba nga xam day am par exemple enseignement militaire maanaam xale bi bu bu defee bu excès sem ñu koy jàngal la patrie di ko jàngal xam nga bon disons la guerre d'une certaine manière quoi tu as vu parce que fu mel ni Prytanée militaire tey booy def seconde ak première da ngay wàcc para bien que dinañ donc je crois que loolu dafay am solo réew da nga koy éduquer parce que lu du yaay ak rek ñoo yar ci kër gi mais réew lii boole mooy tubaab bi naan la nation est une âme un principe spirituel dafa am lu leen di war di boole. ci ci ci benn côté. ba nga xam ni di nga gëm ni yow tey ji réew mi mën nga koo jox sa bakkan pour vraiment. réew mi. mais loolu sax jamono tey da koo laaj ndax bu ñu xoolee jeunes yi ni ñu manqué tey yar euh, civisme amatul da ngay gis ko ci mer dem toj loo xam ne ñëpp a ko bokk teer bi barki dem ba attaqué nañ ko bu ñu jëmbatoon ci ñoom civisme jëmbat ci ñoom patriotisme xëy na tey problème yu bëri duñu ko duñu ko jànkonteel donc li ngay wax nii lu am solo la. waaw tout à fait parce que xam nga tey. boo xoolee man nee naa leen Europe li ko développé mooy tubaab bi dañu def service militaire ku du ko defee yow soo demee ci armée dañ lay yar. dañu am lu ñu dindi ci yow am lu ñu def ci yow nga gëm yow sa réew. sa intérêt réew ngay jiital. très bien ñooñu ñoo defar point yi boo xoolee fii sax bu njëkk jeune militaire bi nga gis mais tali yooyu ñoo koy defar man tey samay doom ils ont grandi à Dakar mais récemment dama leen yóbbu ci Cilmaxa pour ñu dem vacances. ak keneen tamit keneen tamit parce que boo ko deful ñu nekk fii du ñu xam. ki nekk Dakar aussi bu fekkante ni moom amul chance boobu pour génn mais mën nañ organiser ay excursion par exemple colonie de vacances man dama leen réew mi. waroon nañ ko mën a organiser ba duñ jël ay avion naan dañuy dem Maroc wala dañuy dem feneen c'est pas possible yow xale bi màgg na fii am 6 ans 12 ans nga di ko jël di ko yóbbu France te yóbbuwoo ko Tambacounda ah yóbbuwoo ko Kédougou yóbbuwoo ko Casamance loolu nag mooy patriotisme tant que nag amul suñu réew ñuy ñeexa ñu ñeeyaate ñu ñee ñu ñu ñee ñu ñeeyaate di dem voilà parce que loolu aussi du yoon mbark ñoo ko la ko ba tey jii colonie de vacances boo koy organiser mën nga ko organiser ci biir réew mi mm-hmm. donc ñun aussi sunu plan d'action on a ces yoo xam ne sax dafa am histoire am taarix bu ngeen fa demee jàng la fa xewoon. jàng la fa xewoon moo tax ma ne ñun suñu plan d' action ñu ngi prévoir loolu par exemple avec l' armée ma ci saluer aussi le colonel Mandikou Guèye vraiment kuy jàppale histoire Sénégal mbooru Sénégal euh, vraiment taxaw ci trop nag récemment il a été à Paoskoto il est toujours avec nous donc lu mel noonu ñun ñu ngi ci am benn plan d' action xam ne dañu bëgg jël par exemple le bus de l' armée. xam nga armée am nañ musée te ñu bëri fi ne ni xamuñ sax armée am na musée mm-hmm. te boo demee kan nga fay fekk ay Albury nga fay fekk mm-hmm. ay Lat Joor mm-hmm. ay ay voilà ay mooy bi nekk ci ville bon moo nekk boulevard la République donc bis boobu dañ ko bëgg a def benn bis itinérant peut-être jóge fii Dakar jaar cees escale dem kër Amadou Yàlla ah dem fala par exemple Thilmakha-Ngol dem Dékheulé mm, dem mexe donc symboliser yooyu ba nga xam ni xale yi dina attirer seen attention à travers aussi par exemple la télé le dessins animés yi nga xam ne Mickey yi xale di seetaan am nañ ci ay projet yoo xam ne aussi dañu bëgg a def l'histoire par exemple du Sénégal à travers les Mickey les dessins parce que xale bi toog di seetaan ay niki ne la doon xawma mais bu fekkente ne moom am na boo xam ne bu cliquer day gis la bataille de Mboul wala Lat Joor li mu daan wax ak tubaab bi wala sëñ tubaab fu mu jaaroon ak tubaab bi loolu da leen gën motiver donc foofu la war a taxaw loolu aussi ñu ci lancer un appel rek le ministère de xam nga parfois da ngay courrier yi dafay des réponse yi hmm? donc de sorte que seen taxawaay ñu ngi koy rafetlu mais lu ñu gën a taxaw rek doyul parce que la culture le soubassement du développement c'est le soubassement d'un pays parce que mooy fondement bi bu taxawul rek dara du dara du dem waaw yéen a ngi teewlu démb ak tey ci réew mi FM ñuy waxtaanee euh, Mame Lat Dior Ngoné Latyr Diop dalal ci Sayer Ablaye Coumba Daaro Diop kenn ci ay sëtam alors euh, ni nga ko waxee yéen a ngi ci plan d'action euh, ba ñuy def waxtaan bu njëkk yaakaar naa ne war na am ñett mbaa ñeenti at yéen a ngi woon ci waajal ab colloque boo xam ni da ngeen ci jublu woon waxtaan ak fësal ay jalooreem ngeen jubluwaat itam ci événement bu ni mel lan mooy avancement yi nga xam ni gis ngeen ko ba ngeen tàmbalee événement yu mel nii ngir fësal jaloore wu ñi nga xam ne ñooy jàmbaari Sénégal mais rawatina ak seen maam Lat Joor. waaw xam nga colloque boobu euh, depuis peut-être euh, quatre ans ñu ngi koy jéem a organiser bon bee sax def nañ ci ñaari conférence euh, parce que colloque aussi dañu bëgg mu nekk un colloque international. kooku aussi on a signé depuis lors avec le département d'histoire bi nga xam ne tey moo yore mboor mi maanaam tout ce qui est académique foofu tamit xëy na nit ñi dañu war di sukkandiku foofu département d'histoire ñu jàmbaare lañ ñu ci sali aussi vraiment le professeur Ba euh, ak tamit le coordinateur de l'histoire générale du Sénégal le professeur Fall Mamadou Fall donc euh, ñoom tey jii lépp loo xam ne rek am nañ ko ci mboor wala dem nga ci ñoom xëy na mën nañ la jàppale donc colloque bi ñoom ñoo koy préparé surtout donc ñu ngi ci préparatif yi dañu bëgg nag mu nekk un colloque international boo xam ni ku mel ni par exemple professeur Mamadou Diouf nga xam ne bind na ci histoire Lat Dior mi ngi ko mi ngi États-Unis mais par vidéoconférence bëgg nañ mu àddu ci ku mel ni Lorenzo ku mel ni le professeur Blanchard qui est qui est qui est qui est historien xam nga et qui est voilà ku ku xam màcc ci wàllu colonisation ak décolonisation parce que foofu tamit tubaab bi toujours ñoom dinañu ubbil ay brèche mais ñun ñoo ko dul exploité parce que tubaab bi xam na ni moom dafa faagaagal suñu maam ñëw na fi euh, créé na monnaie xam nga jël na suñuy ressources colonisé nañu ëpp nañu doole. même gouvernement yi jëkk yi ñoom wala noot même gouvernement jëkk yi ñoom la woon. xëy na tey nag liberté am na on a des donc on a des présidents sénégalais et tout ça waaye ba léegi nii tubaab bi moom bañul loolu nga ñëw ni ko sëñ bi man de yaa ma defoon lii kayit yaa ngi nii moo tax souvent dama naan le débat doit être juridique ñun à travers. réparation am ci. très bien à travers ce peut-être xam nga man euh, j'ai l'idée même de de de de de d'y associer euh, pourquoi pas euh, l'association des juristes du Sénégal nga xam ni ñoom dinañ mën a def un véritable plaidoyer comme l'a fait le professeur Sora récemment avec l'Algérie gis nga tubaab yi dañuy ñëw wane ay image wane reconnaître maanaam ni daal ñoom lii ñoo ko defoon toor la tooñ la tardel nañ ñu ñu xool lu ñuy réparer c'est-à-dire ci réparation bi tam on demande pas de l'argent mais tey bu fekkee mën nañ def coopération boo xam ne France moo ñu ëpp doole ci wàllu mbay mu ne ah mbay mi kat mën naa leen ci jàppale dañuy nangu bu fekkee wàllu napp gi la tey nee naa leen xale yu Ndar yi nga xam ne tey dañoo nekk ci réew mi mais ñu aussi peut-être Lat Joor mën na nekk seen référence ba nga xam ni tey am na loo xam ni duñ ko nangu donc pourquoi xale yi ñu leen a jël yóbbu leen jàng nañu Corée wala Chine ñu jàng dawal bateau buñ jàngee dawal gaal yaa ngi dégg dellu si état bi mën a jënd ay bateau jox leen ko au lieu ñu jël suñu licence de pêche di ko jaay wala nga donc de que loolu yëpp dafay ñëw rek ci nga xam ni Lat Joor daana ko bañ ci ni raay bi du fi jaar parce que amuñ ci benn intérêt la preuve tey saxaar googu daan jógee Saint Dakar di dem Saint-Louis dawatul kon tubaab yi seen intérêt moo ci nekkoon et ça c'est mille huit cent et mille vingt et un le train ne quitte pas pour aller à Saint-Louis kooku dafa war a am jàngat bu ñu ci jàngat que ni Lat li mu doon wax dañ leen tubaab yi seen intérêt dong moo leen ci bàyyi woon kon raay boobu tey bu ko Sénégal mën a defaraat defaraat ko ci suñu intérêt lay doon waaye boobu doon ci suñu intérêt am na ñëpp ñu ko dul comprendre ñoo xam ne rek pour lan muy bañ raay bi non li tax mu doon ko bañ mooy xamoon na ne bu ko tubaab bi defee dominer ko dominer Kajoor mu ni ah xaaral ba pare. gën a mën a roñ sax suñu ay ressources. très bien gën a mën suñu ressource suñu ressource ba pare aussi bi ni def raay bi dañu ko raay boobu euh, train boobu saxaar gi moo gën a gaaw fasunaaru góor te boobu amul lu gën a gaaw fasunaaru góor par exemple parce que loolu moo doon ak ay ak mbaam. oto amul woon pratiquement ci leen nag ne kon ñii li ñu bëgg a def bu ñu ko defee rek c'est fini mu opposé wu ci waaw ba ci dernier lettre bi mu bind parfois ni leen maalaw sax du gis raay bi <laughs> loolu aussi am nañu ko comprendre mais dafa bëgg ni leen su ma bañee man ci boppam sama bopp duma gis raay bi mu xalaatuma ko gis maalaw ci boppam du gis raay bi donc voilà ba nga xam ni loolu moo xoon nag ah am na lu ko tekki mooy maalaw bi nga xamee ne jàpp nañ ko mu ñëw ba ci bi dafa dafa xaru. Hmm. waaw maalaw gisu raay bi moo tax géwéli naan maalaw gisul raay bi mbañ ko du gelaw na waaw. donc euh, li nga wax noonu dafa am solo ci xale yi di xool ci référence yooyu ni kii li tax mu doon bañ amuloon complexe tubaab. waaw parce que euh, am na sax ñu ne à la bataille de Mecque Lat Joor jàpp na ay tubaab waaw. ngeen baal ma ci terme bi xarfal leen ni leen bu ngeen demee neen gouverneur nii la góor di mel tellement que moom dafa xamoon ni tubaab bi li ko ñor rek mooy intérêt li ko ñor rek mooy il a collaboré nag à un moment donné ak ñoom parce que bi mu leen gagné 1869 boobu dañu signé traité ni ko léegi nag kon nangu nañ ni yaay damel parce que boobu amatuñu pexe bon mu coïncider aussi ak la guerre prussienne en France muy France Allemagne boobu France Allemagne sonal leen xam nga tamit stratège lañ. Mhm. ñu ni ah kii kat nañ ko bàyyi fii donc Lat Dior il la chance de régner en hégémonie de 1871 presque en 1882 mhm. foofu gouverneurs yi ñëw yëpp. da ngay ñëw collaborer ak moom ngeen nekk ci jàmm nga bàyyi ko muy gérer Kajooram avec toute autonomie nag commerce bi du dox ñu nekk ci jàmm ba 1882 nag malheureusement ci lañ ko defaat proposition raay bi mu bañ ñu fal Samba Yaaya qui est son demi-frère parce que Demba Suba ak Samba Yaaya Demba Suka ak Ngor Latir ñoo bokk ndey ak baay après ci lañ fal Samba Yàlla Yaaya rey ko juin 1886 Lat Joor ñu faat ko 1886 toujours en fait octobre ñu daaneel Lat Joor mën nga ñu ñëwal ci xeex boobu nga xam ne ci la Lat Joor daanoo. waaw xeex boobu euh, mën naa ci ñëw parce que bi mu koy xeex boobu fekk na pratiquement sax moom dem na fi Jolof demaat fi Rip bi mu dellusee nag ba tubaab bi fal Samba Laobé ah mu ni man du ma xeex ak sama jarbaat ci la Samba Laobé nag par le biais tubaab incité ko mu dem xeexi ak Albouri Albouri aussi cousin Lat Joor parce que Albouri ak Lat Joor ñoo ànd Rip ñoo ànd ngol-ngol. ñoo deful loolu 1875 lañ tàqalikoo de 1861 à 1875 Albouri ak Lat Dior lu ñu def ñoo ko ànd moom it mu doon jàmbaar vraiment un héros national moom it euh, comment dire euh, Albouri mu nekk héros national xam nga foofu nit ñi dañuy jaawale héros national Lat Dior est le héros national du Sénégal mm. mais Albouri héros nationale la euh, Maba Diakhou héros national la Sidi Ndaté héros national la Euh, Aline Sitoé sax héros national la même aujourd'hui des héros mais Lat Dior symbolise la résistance. moo tax ñu ni Lat Dior est le Sénégal. loolu président Senghor moo ko nommé feetal ko centenaire euh, Lat Dior en fait Abdou Diouf feetal ko centenaire Lat Dior bi. président Macky Sall dem fa en 2018. inauguré musée boobu vraiment waaw deqale bon xeex boobu donc su ma ci dellu see rek dafa am rapport bu ci kii naan le capitaine Valois def. capitaine Valois moo doon. la mu diriger guerre deqale. guerre boobu aussi bi mu koy diriger nee na leen bi ñu xëyee xeex bi 11h la commencé. mais fokk na boobu sëñ la Joor moom ni ay soxnaam firigu leen parce que xam na day dee. waaw une semaine avant dem na gis sëñ Touba ñu bëri sax dañ naan dafa gis sëñ Touba jóge Mbàkke Kajoor déedéet une semaine avant la dem ci sëñ tubaa sëñ tubaa recevoir ko téye ko parce que amoon na colère ak baayam. kon nag daal fi ni nii moom daal Kajoor daal nee nañ mën a fi ni nii daal dee rek. parce que tubaab bi moom mënu ma leen a bàyyi ci ni ñu nekk nii sëñ tubaab foofu ni ko ah te nga bàyyi ma jiital ma ma xajal tubaab bi jox la ko nga jiite kajoor mu ko déedéet mbàkke waaw loolu daal jomm naa ko. mënu maa jiite sëñ tubaab da bëggoon defal lan. sëñ tubaab ko bu da woon da ngay ñëw toog ma xajal la ak tubaab bi jox la kajoor nga jiite ko te ku ne xam nañ sëñ tubaab mën na loolu. c'est-à-dire. waaw maanaam bi Lat Joor jógee ba war a xeex ak tubaab bi une semaine avant. dafa ni damay seeti sëñ tubaab Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor sëñ tubaa Lat Joor moo ko joxoon Maamoor Anta Sali waajuru sëñ tubaa donc sëñ tubaa nekk fa nag bi Maamoor Anta Sali génnee àdduna dafa jàngale alxuraan moom it di def ay xarbaaxam ay kéemaanam mais boobu aussi moom tubaa baa ngi koy bàyyi bët léegi Lat Joor nag dafa dem ci sëñ tubaa tàggu ji ko fekk na boobu ñoom Kajoor xam nañ sëñ bi parce que boobu Cheikh Ibrahima Fall ñëw na ñëpp ñëw nañ bi mu ñëwee nag la ko ni tee ngaa toog bàyyi xeex ak tubaab bi ma jox la Kajoor nga ma ñaanal la nga jël Kajoor diriger ko te deret du tuuru xeex du am. dara dal di jib mu ne ko mbàkke xam naa ne mën nga ko loo ñaan sa borom loo ñaan sa borom mu may la ko waaye bii moom tey moom damay dee rek dégg naa foofu sëñ Tuubaa euh, jox ko benn xasida benn bayit ñu ko mu nafar ko bi mu ko nafaree ba pare bi muy dem sëñ su sumi mbubbam jox ko ko mbubu moomu moom lañ dencee Lat Joor bi muy bi muy deqale waaw loolu aussi lu am la ci diggante Lat Joor ak sëñ Touba. waaw kon moom moo def choix wu dem xeex. waaw amoon na yoon bu gën a yomb. bien sûr non sax tubaab bi sax ci boppam tubaab bi nee na ko yow kañ ñun kalmal rek ñun bàyyi ñu defar raay bu leen déedéet donc Lat Joor su nangoon raay bi jaar fi buur lay doon roi. et ses enfants vont venir wala sa sa sa progéniture ou bien voilà en tout cas daal tubaab bi dañu ko daal raay bi daal boo ko nangoo moom ñun on est à disposition. loolu aussi dafay jaar ñu koy jàngale parce que mi ngi ci yi. traité bi ñu def ak tubaab bi proposition yi ko tubaab bi defoon parce que foofu tubaab bi dañu ko noonu la def ni leen première condition mooy liggéey bi du nekk liggéey boo xam ni day nekk genre travaux forcés déedéet day liggéey nekk liggéey bu normal ngeen di fay ouvrier yi c'est pas un travail gratuit hmm. beneen bi mooy raay bi fi muy jaar foofu rek ngeen di jaar amul leneen lu fa France moom gaar yi da ngeen koy defar tubaab bi ni ko d'accord nañ gaari aussi nañ fi def ay teen bu ko defee nit ñi di ci naan mu doon ndox mu neex waa Kajoor man ciy naan donc traité boobu signé woon nañ ko a priori bi ñu demee bay finalisé nag ci leen leen la tegal condition yi ni leen daal lii ngeen bëgg a def su ngeen ko defee da ngeen may dominer d'accord ma ci mais bindoon nañu ba def étude de projet yi ba finance financement yi génn loolu donc tubaab bi ni ko nag yow mënuloo signé ñun ba pare di ci ah. leen non damay dellu ginnaaw parce que li ngeen bëgg a def raay bi mais bu ngeen d' accord ni seen kajoor mooy moom train bi ak bénéfice ñu ne ko déedéet en tout cas produit français lay doon loolu moo leen loolu moo leen jaxase. mais Lat Joor moom nangu woon na appui rek na aussi ñoom bu ñu defaree raay bi dañ koy indi mu nekk propriété kajoor ñoo koy moom tubaab bi ne ko déedéet suñu marchandise la ñoo koy contrôler Lat Joor na leen ko bu ngeen ko contrôler contrôler ma da ngeen may dominer loolu duma ko nangu tubaab bi xeex ak moom 1882 dàq ko fal Samba Yaya Samba Yaya itam un an la falu moom it yóbbu ko ndar bi ñu ko yóbboo ndar moom it ndeysaan yaayam gaañu fekk tubaab dañ ko indi foofu dañ ko convoqué mu ñëw rek ñu téye ko il est xamul lu fa bon bu xëyee ñu signé ko kenn bi yaayam gaañoo nag mu mu dem suka mu bëgg a dem ca dëj ba ñu ñun ko noo doo dem mu ne ah kon man prison laa nekk ñun ko waaw ci la xaru ci li ñu wax il s'est suicidé dans le fleuve même waaw ah, moo tax dëkkoon disque sax pourquoi ne pas proposer pont Faidherbe bi ñu tudde ko euh, Samba Yaya waaw parce que bon voilà ci la xaroo ci pont bi la xaroo. donc proposition bi ci ndar pont bi ci ndar. fa la dox dégg naa doxantu ñu bàyyi ko muy doxantu mu jël ay xeer def ko ci tubéy ji. tëmb ci géej gi pour ne pas être sauvé. il s'est suicidé bon loolu aussi il que c'était euh, un peu l'apanage des ceddo c'est-à-dire ceddo boo ko téye rek parfois ñoom ils sont suicidaires ci côté boobu. donc pour revenir un peu sur la bataille de Dexële Valois daal nee na bi ñu tàmbalee xeex bi. un quart la durée. mais constaté na ni Lat Dior moom fukk bi mu àndaloon c'était extraordinaire kenn xamul woon mu àndal. moom daal dafa ñëwoon deesi. dafa ñëwoon deesi moom ba avant muy dem aussi wax na ko ay soxnaam ni leen firiku leen dénkaane voilà boppam daal maanaam daal. xam naa daal. il leur a dit ça euh, je crois que les derniers jours de Lat Dior c'est Amadou Cissé Dia ou ñëpp wax nañ ko que ni euh, parce que nee leen euh, xam nga damaa bëgg julli ji ci sama sëriñ ba mabba avant tisbaar d'ailleurs bi ko sëñ Tuubaa kii sax loolu ko da ko ni daal. tey moom bisub dee la quoi donc ils ci bis bi la jógee Mbàkke dem deqale am na ñu ni une semaine après mais lu ci mënti am Lat moom xamoon na ni day dee damay dégg sëñ Cheikh euh, Almakhtoum di wax ni euh, loolu suicide mystique la waaw loolu Lat Joor def suicide mystique la parce que xamoon na ni day dee tey mais nag ci ngor la dee te d'ailleurs sax yaakaar naa ni man loolu moo ko may tey li mu am ba nekk héros national beneen bi tamit mooy tubaab bi bi ñu defee rapport foofu dañu ni aucun résistant en Afrique de l'Est n'a infligé des pertes aussi considérables que Lat Dior donc moi je crois que. Lat Dior li leen Lat Dior ñàkkaloo kenn ñàkkaloo. kenn ko li mu leen résisté aussi kenn ñàkk kenn résisté wu leen ko. pendant vingt deux ans vingt trois ans pour ne pas dire vingt cinq ans parce la dund Lat Dior. 44 ans la dund à 18 ans mi ngi xeex ak kon loolu mat na 25. nangul nañ ko njàmbaaram. nangul nañ ko njàmbaaram signé ko. ni nag ñoom mosu ñoo gis daal fii Afrique de l'Ouest xeex bu mel ni Lat Dior. ci bañ ci personnalité ci diplomatie ci bëgg réewum ak ci njàmbaar tey ba dem joxe bakkanam dee si le chemin si le champ de bataille loolu nag euh, ñu bari tamit loolu moo leen ci manqué ba nga xam ni léeg-léeg bu discussion amee rek dama naan leen indi leen kayit yi ak archive yi ñu xool kuy comparer rek Lat Joor lii la diw lii la boo indee kayit yi rek di nga xam kenn ku ci ne li nga résister parce que ñi ci résister cinquante ans dix ans da leen di wañ moom nag vraiment ñëw na perte nguur gi jëlaat ko collaboré ak tubaab bi et puis c'était un grand diplomate xamal na fu muy jaar tubaab bi bi bu ñu musaa ñëw bëgg ko nax moom daan na xam ni kii da koy nax si am na ci gouverneur yoo xam ne c'était ses amis am na il sax le gouverneur Valère bi xam ne yaakaar na su ma ju moo mujj moom il n'était pas d'accord pour tubaab bi dem rey ko song ko deqale tellement que da waxtaan ak moom mais xamoon na ni il défend son intérêt son son pays mm-hmm. tubaab bi nag bon xëy na comme ni ñu ñuy def ba tey ëpp ñu doole waaye àla lu ñu mën a jàpp daal mooy comme ni nga wax li am solo mooy tey lu tax la Joor doon bañ maam yi ñëpp nag moom laay wax toujours rek. du suñu maam ñun rek te dañ ko war a euh, vulgariser dañ ko war a gën a xamal xale yi bon ñun ñu ngi def ay démarches à travers le centre culturel Blaise Senghor bon voilà mais médias yi dafay des émission yi aussi bon xëy na tey ay am na yu am ay lu mel ni wëndeelu Pape Cheikh dinañ ci invité effectivement ñu ngi góorgóorlu donc télévision yi rajo yi ak émissions yi def nii dañ ko war a def périodiquement. bu ko defee rek dana jàngale. bon curriculum bi tamit wax naa ko keroog ci bi ñuy préparé kolo bi ni leen jàngalekat yi aussi ak le ministère de l' enseignement état du Sénégal dafa war a gën a fësal mboorum Sénégal ci euh, njàngum xale yi. CM2 ñu jàngal la kan mooy Lat Joor am na livre yu ñu bind ci Albouri am na livre yu ñu bind ci Samori ainsi de suite donc Afrique di manière générale ñoo war a taxaw ci loolu ndax loolu daf ñu manqué trop trop trop ba nga xam ne tey. dangay dugg ci kër sax xale yi di làkk ay français duñu dégg wolof xam nga yooyu yëpp tamit ci lu ko waral mooy ñàkk xam suñu mboor waaye ku ne xam na ni tey olof boo duggee ci Facebook réseaux sociaux yi nit ñi sax léegi ñu commencé di binde te loolu nit ki dafay am solo nga koy jàngal muy xam boppam ci la ak ci ay maamam ak ci ay ñu jige paa nga ko jàngali Molière bu la waxee Molière karaw ga dafa bronze nga ñëw ay Baudelaire non fii am na ay mag ñoo xam ne tey lépp loo xam bëgg nañ koo jàng ci tous les domaines mi ngi fi boo demee Cheikh Anta voilà Sëñ Touba El Omar su Thierno Souleymane Baal récemment lañ ko doon defal colloque ah, la révolution Torodo kooku aussi vraiment ñu ci saluer encore une fois le département d'histoire le professeur Ba donc voilà en tout cas daal euh, war nañu gën a delloo si mboor mi pour xale yi gën a xam parce que tamit loolu moo manqué comme li nga wax repère dañ leen yar dañuy génn rek dem lu ñu dégg France la ñuy dégg da nga war a jàng da war a am xaalis déedéet réew dañ koy tabax. alors euh, sànq laaj naa la ko ba ngeen tàmbalee yéen démarches yi ba léegi lan ngeen gis ni yokk na ci ndax yéen a ngi def évaluation nii def nañu kolog am na trois ans wala quatre ans ci ginnaaw est-ce que tey am na impact ci ndaw ñi wala yéen ci fi ngeen di xam ni moom ngeen jàpp comme cible ci activités yi ngeen di def. waaw am na impact bu baax a baax a baax maa ngi koy wax keroog ma ni depuis quatre ans man sama bopp li may gëstu ak li may xam ci histoire ak mboor boo nee mboor xale yu bëri dañu la ñaan lan mooy mboor. mboor mboor mooy ah. histoire. ndeysaan damay ci réseaux sociaux yi moo tax ma ni la am na lu bëri lu muy indi parce que léeg-léeg débat am xale yi posé la keroog am na ku ni fan mooy Paoskoto. xam nga ni Sénégal bu judd bu 18 ans nga naan ko la bataille de Paoskoto kon xëy na jàngatuñu ko. te xamul sax Paoskoto. Pathé Badiane loolu xeex la bu mag boo xam ni dañ ko waroon di célébrer nit ñi xam ko. dëkkale normalement tey ji bon ENOA nag dañ fay dem ba léegi les les militaires ñoom souvent dañuy def ay visite kon li nga wax ci yokkute googu mooy rek gën nañoo dajale ci ci vraiment famille bi gën na am tax aussi ñu am ay ambition gën na tax aussi ñu xam suñu bopp gën am aussi vraiment ñu ñu ñu ñu am ci ay retombées par exemple Deqale bi fa président Macky Sall ñëwee. musée ba ba euh, il y avait bi ñëw na. Mm. il nous avait promis forage château parce que ndox mi foofu dañ koy xam nga. loolu n'est pas encore accessible en fait am na am am na teen am na am na am na robinet mm. mais bu amul château d'eau tey ñun on a un projet très ambitieux touristique on veut que Dexle soit un nga xam ne tey jii euh, tubaab bu ñu ñëwee bu ñu nee cëp au lieu ñuy dem ay Gorée wala ay kii dañuy dem Kajoor. xam nga def ay visites sur les sites. loolu aussi création d'emploi lay doon. te loolu on a de l'espace pour le faire donc projet boobu ñu ngi ci la maison des hôtes donc le président a signé le livre d'or vraiment ñu koy lancé waat aussi un appel ah on a on l'a sollicité en euh, plusieurs fois xëy na euh, voilà affaire yi. demeewul noonu waaye nag ñun aussi même suñu amoon ay link par exemple parce que aujourd'hui on a une association qui est reconnue légalement une association nationale internationale même je dirais boo xam ni mën nañu permettre tey avec des ONG ou bien suñu amee ay euh, vraiment ay relation ak peut-être par le biais de l'État ñun lu ci bëri mën nañ ko defal suñu bopp à travers le monde kon foofu la ñu war a taxaw Sénégal tey booster association yi ak grande famille yooyu pour ku ñu jéem parce que ñun tey lu ñu am di ko def Kajoor lañ koy def Sénégal lañ koy def la famille de la Dior est partout au Sénégal Lat Dior c'est le il appartient à tout le monde kon tey lu ñuy def mën nañ Fuuta mën na cee am Jolof mën na ci am leneen donc de sorte que vraiment foofu aussi dañuy ñaan état bi mu jàppaleñ ci loolu facilitation yi nga xam ne war nañ ko mën a am pour faire nos projets touristiques ah, mu doon loo xam ni vraiment nit ñi dañ ci gis seen bopp parce que tamit culture bi dafay am solo c'est pas seulement la politique qui qui développe malheureusement sax politique yi bon boo xoolee c'est la commune euh, ainsi de suite bu dee culture nag da ngay dugg ci biir nit ñi mën a indiwaat mbayum mbay mu sëb mën a indiwaat voilà jumtukaay yooyu nit ñi mën a toogaat ak culture wu xamaat seen bopp bëggaat seen bopp bëggaat seen réew te ku bëgg sa réew di fa investir quoi mm-hmm. alors euh, justement ci musée bi laa doon bëgg a ñëw sànq président ñëw na foofu inauguré ko ànd ak euh, ñii mu àndaloon ñëpp mais est-ce que bërëb ba am na yoo xam ne tey bu fa nit newoon cëpp ngir visiter dana am mu fa fekk est-ce que mboor ma ma nga fa ak xëy na yenn euh, symbole yi nga xam ni ku ñëw di nga xam ne ah fii kat mooy bërëbu Lat Joor est-ce que yéen a ngi dundal bërëb ba ma ngay dund euh, musée des Xalé. waaw très bien loolu aussi xam nga euh, boo xoolee ci historique gu Dexale président Senghor quand même bon c'est vrai moo ko nommé héros national mais Senghor aussi. Euh, li mu waroon a defal la Joor peut-être foofu la ci yem. ci te jàpp rek ko def ko héros def ko def ko héros national. alors même foofu sax l'idée me vient hymne de la jeunesse bi nga xam ne daan nañ ko def après chaque hymne national xam nga loolu dafay am lu muy def aussi ci jeunes yi. mooy ñaani bi. Mm-hmm. ñaani bañ na waaw ñaani bi. pour toi au Sénégal pays de lumière parce que suñu hymne national euh, fukk bi dafa xaw a des boo indee ñaani nag. ñaani c'est un chant c'est un c'est wayu bañkat la maanaam c'est en juxtaposition avec le refus de Lat Dior te pourtant ñaani bi ñu koy wan Samba Kalaadu Jum moo ko woy muy maami professeur Massamba Gueye mii tey moo ko woyal Lat Dior bi nga xamee ni dem nañ attaqué buur ñaani buur ñaani indi leen benn këll def ci dóom ak ay bal foofu nag géwél bi ni ko nag ah kii de dafa bañ bañ na de ñaan lu ah, ñaan loolu lañ doon waxante très bien daal ni ko ñaan lool loolu la loolu la ñaan kañ kañ mooy bu ko waxee Lat Joor rek Lat Joor mu ne ko ñaani bañ na de ñaani bañ na Diallo Fatma Khourédia ñaani bañ na Samba Binta Maam Gay Jóob gert lañ ko ay foofu muy indi ay maamam ci gert mm. mu dem trase wuti naar Samba Binta Maam Gay Jóob dañ ko ay gert mu dellu trase wuti nii naar donc mi ngi koy rappelé histoire ay maamam di ko kañ waaw ni ko nag ñii dañoo bañ dëgg leen attaque loolu moo waral woyu ñaani ñaani bañ na waa ñaan itam ñu ngi koy revendiquer mais Samba Lat Joor ko woyal ñaan tam bu leen neexee ñu parce que dañoo bañ jour boobu xeex bu mitti la mhm. mais par la par la fin Lat Joor moo am victoire ak Maba mais xeex bu mitti la woon parce que boobu buur ñaan bi dafa am doole mystique mhm. bon bref euh, ci bu ma ñëwee ci euh, comme tu dis très bien ci dëkkale dëkkale bi mu demee noonu Abdou Diouf dafa ñëw nag def loo xam ne aussi kenn def ko fa muy le centenaire de Lat moom tamit malheureusement ay RTS moom laa wax toujours du ñu joué rôle boobu pour fësalaat loolu le centenaire de Lat Dior dafa am lu muy def ci xale yi nga gisaat mag ñi demoon ay ay ay gouverneur lu kii ndaw xam nga ay Samba Yàlla ay vieux Mor Souran tu vois ah, ay Badiane Fatma donc ay Ibrahima Diop Massaf ak son discours ah mon père à l'époque avait peut-être quatre-vingt-six ans ba nga xam ni yooyu day indi ay fàttaliku ci xale yi ñu ci fier di xam ni kat ah événement bi kat am na fi lu ko waraloon centenaire loolu voilà c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas donné à n'importe qui donc Abdou Diouf def na loolu ba pare defar fa benn genre aussi benn benn benn benn sel quoi hmm. benn sel la fa defoon quand pour symboliser rek barab bi léegi nag président Macky Sall bi mu ñëwee avant mu ñëw aussi am nañ suñu frère boo xam ne yàlla ko yàlla yërëm bu naan Labba Lat Joor bu Pape Bamba Mbaxaan moo fa njëkk dem quand defar barab ba bi ci paree suñu benn frère bu ñu naan bassiru Diop moom it Lat Joor euh, moom xam nga diligenter travaux yi ñu clôturer ko ba fi ni nii vraiment ña ngi fay dem di fa def voilà di defar mais des na c'est-à-dire actuellement nii y un architecte qui s'appelle Touré je sais pas bu fekkee mi ngi may dégg moom moo defar Massalikul Jinaan moom defar na benn maquette pour le pour vraiment le mausolée de Lat Dior c'est-à-dire le musée et tout parce que musée bi ñu fa def quand même euh, vraiment dafa même le président Macky Sall bi ñëwee wax na ko nee musée bi c'est tout sauf un dañ koy raser parce que ah bu koy def xëy na ni ñu ko defee c'était dans la précipitation il faut le dire waaw franchement ni ñu ko defee rek baaxul. le président Macky Sall a eu peut l'idée mais c'est le ministère de la culture qui a diligenté. kan moo def nag bon voilà quoi mais en tout cas c'était avec le ministère de la en 2018 qui a fait ce musée mais qui est tout sauf un musée ça je le dis haut et fort ah. parce que tey mënoo fa dem ni da nga fay fekk dara y a même pas de sécurité pour nga fay denc ay bagages parce que y a pas ensuite ah, tamit voilà quoi donc un musée aussi dafay am une architecture ah loolu aussi xëy na bi ñu koy def associé wuñu ci famille bi c'est ça aussi le problème. ah ñoom rek a dem def. très bien ñoo def mais ñun quand bu fekkoon dañ associé nañu ci on les moyens même de trouver un architecte ñu def contre expertise ou jox leen suñu xalaat parce que bu ñu koy def ñun. dañ ci doon associer le département d'histoire. Mm. dinañ ci associer peut-être le musée des armées. ak ñeneen ñoo xam ni des des des architectes qui sont dans la famille ñoo xam ni ils ont la capacité quand même de xam ni lii ñuy def baax na wala baaxul malheureusement donc c'est comme ça que ça s'est passé. yéen est-ce que tey yéen ñii njabootu Lat Joor ay sëtam ak sëtaatam taxaw ngir dundalaat euh, mbooram am ngeen ay mbir ci moom yoo xam ni tey bu ndaw ñi euh, jugoon wutal si leen ne leen dañu bëgg a xam lii ci Lat Joor wala dañu bëgg a gis ay mbiram yoo xam ne moo ko moomoon yéen yore ngeen ci. waaw am nañu ci yore yooyu yu ci am nañu ci nekk kër amatu bon par exemple man sama papa mos na ma jox benn benn chaîne boo xam ni moom lañ daan yeewee Malaw waaw parce que foofu aussi dañ daan waxtaan souvent mu ne ma Malaw dafa mistikoon c'était un cheval boo xam ni dafa jege woon Lat Dior ba nga xam ni duñ daaw ñu ko yeew n'importe comment chaîne boobu man amoon naa ci benn euh, euh, peut-être un mètre boo xam mi ngi ma denc. Hmm. tey loolu bu ñu doon exposé mën nañ ko exposé ci musée bi. bon souvent aussi tey jii. comme ni nga oh, wax yow mii sax sa maam mën naa am bagage ci Lat Joor denc ko du ko joxe mais loolu aussi bu ñu demoon ba créer musée bi mhm. dañ koy nañ ko bëgg ku ko bëgg a indi dañ naan dañu koy loué mhm. soit nga loué ñu ko wala nga jaay ko mhm. wala nga abale ko cest à boo ñëwee da nga naan par exemple Fatou Thiam maam moom ah teg gi kat maa ko jëloon ci maam Lat Joor bind signé yaa ko moom dama ko fi bàyyi heure bu ma neexee ma jël si ko wala ñun la ah mais danga ñu koy jaay wala ainsi de suite donc le sabre de Lat par exemple actuellement ni mi ngi état major d'accord waaw kooku tamit bis bu musée bi taxawee dañ koy jëlee. parce que musée bi ci centre ville. waaw non non non sabre Lat Dior état major. des centenaire lañ ko jox Abdou Diouf. bi mu ñëwee mu jox ko le chef d'état major à l'époque. d'accord je crois que c'était le général Keita. qui est aujourd'hui toujours vivant. ñu koy ñaanal yàlla mu fan gudd ak wér te te récemment ci colloque mm-hmm. euh, comment dire euh, Thierno Souleymane Bal bi. donc loolu dafay am solo comme ni nga wax ni tey ñu exposé woon ci musée bi ay bagages Lat Dior. loolu aussi bu bi taxawee rek on est assez outillé on a la capacité de rassembler le maximum d'objets yu nekk ci Lat parce que teg gaa ngi fi Lat Dior il avait au moins dix chevaux. dix chevaux yoo xam ni tey peut-être voilà kenn ku ci ne boo téyee dara da nga koy denc xam li ma la wax nii ci chaîne bi. soo ma posé woon question. doo ko wax peut-être ñëpp na peut-être ku yore daal Lat Dior. Hmm. peut-être am na ku yore xëy na peut-être ku yore daal Lat Dior am na ku yore donc ainsi de ba nga xam ni. loolu bu taxawee rek incha allah rabbi bagages yi moom. Hmm. yaakaar nañ ni. am na njort gu rafet ni danañ ci mën a am tamit. foofu aussi voilà je lance appel. Ah. parce que je le disais tantôt au département d'histoire man leen vous devez faire ak waa IFAN yi les archéologues les archivistes du moins pour def yenn déplacement yi avec l'appui de l'État on a vu le gouvernement benn béninois. Mm-hmm. récemment tubaab yi ñaata kii la restitution des biens ñu Omar bon tubaab yi dañu ils vont légiférer pour non moi je crois yooyu dañ ko war di waaw l'association des juristes africaine ñooñu dañu war a taxaw ci loolu gouvernement yi dooleel leen jox leen kattan ay moyens ñu dem di indiwaat parce que nit ki da war a xam sa bopp da war a xam sa cosaan de sorte que loolu tey dans les archives classées peut-être boo fa demee wala musée yi mën nga fa fekk tegu Lat Joor wala tegu Maalaw boo xam ni lat ci Lat Joor la jógee mais dañ ñoom il le place secret souvent doo ko xam donc démarche yooyu dañ ko war a def euh, vraiment mais état yi daal ñoo ci war di jàpp quoi le ministère de la culture ils font des efforts mais gën nañoo bëgg daal vraiment ñu gën ñoo jàppale ci ci yooyu daal. Mm-hmm. jërëjëf Sayer Ablaye Coumba Daro Diop euh, kenn ci sëti Maam la Lat Joor la Latyr Diop amoon nañu mbégte loolu dalal la ci démb ak tay bàyyi la rek nga tàggoo très rapidement. waaw di leen sant di leen gërëm vraiment comme ni ma koy waxee rek di leen ñaanal waa réew mi ngeen dem ba nekk une télé une radio internationale ah, di sant di gërëm borom kër gi. Euh, tamit moom it ñu koy solicité di dégg souvent nii xam nga sax ci famille bi la bokk kon Lat Joor ñëpp ci bokk waaw loolu aussi dañ ci am mbégte ñun amuñ ci frontière dama ne leen Lat Joor maamu ñëpp la parce que bu ñu ba ni héros national rek moomatuñ ko waaw te noonu la noonu la demee képp ku baax rek képp kuy Sénégalais rek ci nga bokk kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla di am mbégte di ñaan yàlla teewaat fi ay déwéni déwéni déwén di la ñaanal aussi vraiment ak sa disponibilité ak sa vraiment yëg bi nga am ci ñun ba tax vraiment suñu modeste personnage ñëw fii tey di wax ci Maam Lat Joor wax ji nag lu ci jub ñu xam ni euh, yàlla suñu borom la lu ci dëng nag wala ku ma mën a rectifier aussi du ma bañ parce que boo wax histoire ak mboor da ngay nangu ku la rectifier ñu jubbanti ma képp koo xam daal dégg nga loo xam ni mën na maa jubbanti incha allah rek boo ma wooyee wala nga wax ko voilà foo ko war a waxee man awma ci benn problème pour nga jubanti ma maa ngi santaan ñëpp gërëmaan ñëpp jërëjëf Sayer Ablaye Coumba Daara Diop réew mi FM itam loola doo nga yitteem fexee li baax ci réew mi la ñu amoon démb te war koo sàmm ñu génnee ko looloo waral démb tey bi ñu lay gërëm yow itam gërëm ñëpp ñu doon déglu gërëm jaabo jàllo mi fare woon ci jàppandal gi fattu Thiam Ngom la woon ci kaddu gi émission bi mun ngeen ko teeluwaat ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube ñu joxante dig daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen jàngeen ngeen jëf